بما ليست بخادرة ولا تخايب رجاء فيك يا الله واسقنا ما مما كوثر من اخترت من جميع الخلق يا الله man kaana yursidu saa xayun wa yuliku saa kufrin wa yalsaru man yaxsaaka yallaaw muhammadil maskayi axyaay xaayidina li jannatil xuldi yowmal asri yallaaw عليه وسلم دائما أبدا ومن خفوا اليوم الدين يلا ginnaaw bu xas xasida yooyu nag ngeen doon dégg daanoo li waral ndaje mi tey wala li waral woote bi bis bi nga xam ne dañ koo baaxoo def lu mat juróom-ñaari at jàpp juróom-ñetti at ñu koy amal benn fanub safar ba fukki fan ak juróom-ñaar safar bis bu set ñuy amal ay bernde ànd ko ak ki nga xam moom moo di eh, Serigne Alaaji Seck xasida ak waa complexe xelkom fii ci Touba Daaru Minam ñaari Baay Faal ñu di ko amal at mu jot waaye nag ku ne xam ne eh, weeru safar su xasee teru li nga xam ne moo di bernde dañ koy soxla foofu moo tax sëriñ alaaji sekk xasida ak mbooloo ñi mu àndal bis li nga xam ne moom moo di eh, weeru safar bi wala fukki fan ak juróom-ñaar suba ak ngoon ñuy xëy di berndeel taalibe murid wala képp koo xam dox nga ba agsi ca moo waral tey woote bi kon xam naa dañuy daal di jox kàddu ki nga xam moo di Serigne Alaaji Seck mu ñëw ci li nga xam mooy woote boobu ñuy amal ci fii nga xam moo di Touba Daaru Minam aouzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yasir lahum bi la si tansara fa kullu maa yasartoo teesara waqdi hawaïj alladina daamu fi xidmatin wahablahum maaramu barke Serigne Saliou Mbacké barkeb Cheikh Ibrahima Fall Lamp barke wakaana xaqan mbokk jullit di mbokk taaliba yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare tey ñaanal achaayibul fadila Cheikh Mouhamadulil Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ci barke Sëñ Tuubaa xaside yi noonu la ñuy siyaare baax xalifatu Cheikh Ibrahima Fall Lamp sëñ am ni Modou Mbenda Fall suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér di siyaare bu baax sunu wasila Serigne Assane Diop ibnu Serigne Naar Assane di ko ñaana suñ borom yàggal ko fi te mu wér ci barke xaside yi waaye mbokk yi képp ku gis image bii di dégg sunu kàddu dana xam ne li nga xamante ni mooy ak dëgg te mooy jiitu te mooy mujj muy bis bi nga xamante ni sëñ Touba dane ñu santale ko ci yàlla muy weeru safar ci lañ nekk di ko waaj waaye waaj gi. comme nanu ko daan defee danoo gën a yokk sunu loxo boo leen gisee woote bi li ko sabab mooy bis bi nga xamante ni mooy première safar te jiitu ci weer wi ñu koy amal at mu jot ren di septième édition bu ñu neexee sax ñu ne huitième yàlla dogal nu ko daan def di ko tàmbalee première safar ba di set safar maanaam benn fan ci weeru safar ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar gi bu màgg bu màggal gi desee ñaari fan ñu koy ànd ak sunuy soppe ànd kook sunuy xarit ànd kook sunuy am di jàmm ànd kook sunu xalifa sunu kilifa sunu lépp sëriñ Moustapha Seck borom dibiteri xel koom fii ci Touba ñaari baay Fall bis bi daan nañ ko tàmbali bis bi njëkk ci weeru safar comme ni ñu ko waxee léegi rek ba ci fukki fan ak juróom-ñaari berne di ko jox taalibey sëñ Touba bépp taalibe sëñ Tuubaa boo xam ne am nga yéene bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ñoo ngi lay woo ci liggéey booba ndax mbir mi kat dem na ba nga xam nii mën naa ne dépassé nañu doonatul ñun kase egg na ci ba ci murit yëpp ab képp koo xam ne des nii soppeeb sëñ Tuubaa nga ngir nu woola ca liggéey booba ngir nga ñëw ànd ko ak ñun ngir jëmmi sëñ Tuubaa moo xam ci sa doole moo xam ci sa kàttan moo xam ci sa man-man moo xam lu mën a doon rek ngir nga yéene ko sëñ Tuubaa jëfal ko ko noo la cay woo di sàkku ngir jëmbi sëñ Tuubaa xaside yi noo ca mën a jàppee ba liggéey bay yemb gën a jaar yoon ñu def ko ñun ñi di ko woote nag duñ ci dara dañuy taalibe sëñ Tuubaa comme ñu ko ñëpp doonee am yéene liggéeyal sañ Tuubaa am yéene it bokk ak taalibe sëñ Tuubaa yëpp ak umma islamique bi yëpp boo gisee ñu nu wax loolu mooy liggéey bi doonatul nun kase comme ni nga ko waxee léegi képp koo xam des nii sama nit nga wala ngay jàmbaari sëñ Tuubaa te bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa noo ngi lay woo ca liggéey booba ngir nu ànd liggéey boobu ngir jëmmi sëñ Tuubaa xam naa danañ joxe numéro yoo xam ne des nii képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga am yéene yi lu ca liggéey boobu noonu moo xam nga nekk bitim réew moo xam nga nekk Sénégal gii te mënoo ñëw ca liggéey booba ñu jox la numéro boo xam ne des nii lay àddee ji ngir nga joxe ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa nu defal la ko ca liggéey boobu noonu noo koy ànd ak mboolem koo xam ne des nii ñoo ngi ànd ci xaside yi yi ngeen gis ñu toog ñun ñëpp ñoo bokk xaside sëñ Tuubaa di ànd ak ñoom yàlla dogal képp koo xam ne des nii daal bëgg ngaa barkeelu ci liggéey bi danañ joxe ñaari numéro def ko ci suuf ecran bi am na Wave am na Orange Money bi ci njëkk mooy 77 208 98 91 208 98 91 wala boog numéro bi nga xam ne des nii mooy numéro bi nga xam ne képp koo xam ne des nii bëgg naa tàbbal ñaari numéro yi benn la rek mën naa ne 77 489 04 66 77 489 04 66 képp ku am yéene liggéeyal sëñ Tuubaa daal moo xam nga nekk bitim réew moo xam nga nekk ba ca Makkatal Mukarram ak fu mu mën a doon ci ci àddina bi fii fii ñu nekk rek te bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa noo lay woo ci liggéey boobu noonu soo amee yéene teew boo ñëwee baax na bu fekkee da ngaa am yéene joxe addiya rek ngir jëmmi sëñ Tuubaa boo ko jaarlee ci numéro yi daan la ko defal ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi daal ñu ngi leen xamal ne leen amuñu lu dul sëñ Tuubaa dara it rëyut ci ñu lu dul sëñ Touba ak liggéeyal ko kepp lu ñu am ci xaside yi ci sëñ Touba lañ koy delloowaat damay faral di wax samay kàddu ne man jànkatu xasaayit laa waaye damay liggéeyal sëñ Touba ci biir jànkati xaside yi te liggéey bi ban ko tàmbalee léegi sëñ bi mi ngi ciy jàppale bu baax lii ci waxit ngir leeral ko àdduna bi yëpp gis ko danoo bëgg ñëpp jariñu rek ñu ànd liggéeyal sëñ Touba bi mbooleem koo xamante si ni nag yàlla dogal na nga dégg lool rek mooy sab yëgle waaye nag di profito di santaale bu baax di ñaanal sunu maam sunu yaay sunu lépp soxna Penda Mbuub mi nga xamante ni waxtu bis bi teroo rek day ubbi këram ubbi ay néegam bàyyi lépp fa la ñuy liggéey liggéey sëñ Tuubaa bii ñoo ngi koy ñaanal suñ borom guddalaw fanam te wéral ko moom ñoom sëñ sàddaak mboolem ñu nekk ci kër gi yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm waaye nag di gën a soññ dëkkandoo yi nga xamante ni ñoom lañ maasee dëkkandool ci Tuubaa gi rawatina Daaru Minam ak fee ca ñaari Baay Fall fa nu koy defee ci kër soxna Penda Mbuub googu li ko olof di wax naan kuy wàlliyaan sa kër dafa tagguut ndax gis nañ ne ñoom liggéeyal sëñ Tuubaa doo nga leen yitteel muy ci jigéen ñi di ci góor ñi waxtu wu nu commencé liggéey ba rek ñëw nañ ànd ko ak ñun mboolem soppeeb sëriñ ji Sekk bu ma sa jëfal sëñ Tuubaa ci liggéey bi daal noo ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm ba nga gën koo man ci doole sëñ Tuubaa xasida yi noo ngi siyaare ñëpp nag di woo ñëpp kuy kilifa te dégg lii rek mooy sa woote mooy li nga xamante ni moom lañ waroon na dox muy sunu tànk nun dañuy takk suñu digg lii fu taalibe sëñ Tuubaa te bëgg jëf ci lii rek ñu fekk la fa nga joxoon adde yu ñu jëfale ko ci sëñ Tuubaa kuy sama xarit wala ngay sama soppe wala ngay samaam di jàmm di góor di jigéen di mag di ndaw man sëñ Alaaji Sekk maa ngi lay woo ca liggéey boobu bawuma kenn muy seeti sëñ Tuubaa yi di seeti Cheikh Ibrahima Fall di fépp foo xam ne des ni soppeeb sëñ Tuubaa nga fa rek te bëgg liggéeyal sëñ tubaa noo ngi lay tàllal loxo ngir jëmmi sëñ Tuubaa xaside yi comme nan ko daan defee di ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi ci doole sëñ Tuubaa xaside yi di ñaan mboolem ku ci def sa addiyee yàlla na ko sëñ Tuubaa ful def ko ay milliards ci barke xaside sëñ Tuubaa yi liggéey baa ngoog woote baa kon noo ngi ñaan yàlla nañu yàlla fekkele màggal gi jàmm tan tal ko te man ko te am luñ ci def ci barke sëñ Tuubaa xaside yi loolu rek moo doonoon jataayu tay bi kon noo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu gën fee yàgg di ñaan mboolem ñu ñu koy àndal ñëpp dërëm bu ci def yàlla ko sëñ Tuubaa ci barke xaside yi sëñ Tuubaa yi jërë ngeen jëf sunu xol sedd na kàddu yi nag bu ñu ko déggee comme ni sëñ Alaay Sekk xas da wax daa bëgg murid yëpp jariñu ñoo ngi woo képp koo xam ne nag taalibe Sëriñ Tuubaa nga te liggéey Sëriñ Tuubaa tax laa jóg donc lay woo ci bis ba bis bi nag buñ nee ginnaaw su wala màggal incha allahu rabbi dañuy woote sant Sëriñ Tuubaa moom lañ koy tëjee waaye daal kàddu yi comme ni ko sëñ Alaaji waxee rek noonu la demee ay benn la sant Sëriñ Tuubaa def lépp lu ñu war a def rek lu am murit soxla rek am na ci bis ba incha allahu rabbi ñu ngi ciy woo ñëpp nag di tàllal ñëpp suñ loxo di ñaan képp koo xam ne def nga ci sa ñaq di ñaan sëriñ bi fulal la ko ci barke borom Touba kon daal bis bi moo ngi noonu ñu ngi ciy woo ñëpp jërë ngeen